arrière leen tuuti arrière leen tuuti arrière leen tuuti rek lay wax barke yonent ku jox ni cër la ku fonk liggéeyam la kuy dem ba jeex si liggéey la te gis naa ko na ma ko dooree woon si Walfadjri si ci est wi noonee la ko wéyale si 2STV yi te mënoon na jóge Walfadjri euh, jóge fa dem 2S nekkin bi ba tey ñaaw waaye ba tey mi ngi wéy di rafet ndax ba mu sa ba mu sante yàlla julli si yonent bi am am Cheikhul Khadim bi sëñ sëñ Bamba wax dëgg yàlla mu jël téléphone am woo ma ne ma ma sañoon nga ñëw si ngénte li moo tax ma bàyyi lépp daal di ñëw di ko ñaanal yàlla lafal ko cat di ko ñaanal yàlla ñaanal bébé bi nag bu baax a baax ndokkel ko sargal ko di ko ñaanal mu dund ba am ndey ak baay moom xale bi incha allah kontaan merci beaucoup. waaw sama diggante sama doom jooju Sofia moom jàmm rek lañu sekk ak salaam ak teraanga mu nekk xale bu baax xale bu yaru Sofia dafa bëgg ñépp koo gis ku ku mu xam ku nekk ku teew fii ci bisam bi tey danga naan Sofia xolam ngay njëkk a wax ndax baax gu mu baax baax na jëkkëram baax na yaayam baax na chaque jour damay wax yaayam ma ne ko yow taa faatu euh, baa xam gi si yow la ko doon noonu comprendre nga loolu rek moo am solo si àddina parce que bu dee liggéey dañ ko fiy bàyyi bu dee xaalis dañ ko fiy bàyyi bu dee ay sañse lépp dañ ko fiy bàyyi mais li am solo ci àddina mooy baax yëg nit ñi te Sofia dafa baax dafa yëg nit ñi ñëpp lay wax yaay man kese duma yaayam ñëpp lay wax yaay ñëpp la respecté ñëpp la bëgg ñëpp la safoo ñëpp la faale dañ koy ñaanal bisam bii doomam ji mu am muy Bamba yan na ko yan na ko dund ak moom ñu dund ak moom ba muy wàcce soxna yan na ko yàlla def yàlla bàyyi ko ci liggéeyam li mu ngi liggéey 2 liggéey bu am solo am ci sawarte luñ ko wax reportage yi da ngeen di gis day dem di reporter nice du am benn problème day jéngu yenn yi sax di euh, di jànkoonteeg yenn yi dama koy gis muy jàkkaarloog yenn yi ak fit ndax bëgg liggéeyam donc kooku dañ koy souhaiter rek mu continuer liggéeyam ba yàlla defal ko ci lépp lu mu bëgg ci àddina te yéen maa ngi leen di nuyu di leen fay dama fi ñëw fekk sama frère bi kontaan parce que wax dëgg yàlla liggéey rek la xam Sofia kenn gënu ko man gëj naa dem ci ay xew bu ma ñëwee xew sa dañ may laaj naa lan la lan la wu tax duggatoo ci xew yi parce que yu bëri duggatuma ci mais Sofia baax naa yaru na yiw na maanu na man niroo waale la may wax jumelle sama seex sama seex sama seex sama seex ndeysaan ne ma àdduna yëpp nee nañ dañoo niroo ba ma woowee tamit yëg invité ma ma nangul ko ko macha allah nag jeg juy sëy sàlloo toogal toog naa loo jur mu baax law la cat law la ma làmmañ subaan na ma bët bu aay tuuf tuuf tuuf ba muy juróom-ñaari yoon su fi yaa daraam du tardé siggal ma lay seen baax yaay baax baay baax ci sa bopp moom ma ko gënal borom yaay ju baax ji man jey naa maa ko wax borom bés bi sa bés la borom lëmbalu vampire i xew bi dana mel ne lëmbalu vampire ku ragal deret neewu fi waxal loolu ca kaw ndee la macha allah tabarakallah bu yor ay ngaami muus maa ngaami kaña macha allah yow koo woo mu ñëw da ngaa ci Sofia ñu ngi leen di ziar bu baax a baax a baax sunu digganteek Sofia amitié la rek bu dëgg mu nekk nit ku baax nekk artiste comme ñun voilà bëgg nu premier jour ndax bokk dañu bokkoon benn tournage bu ñu doon def boo nga xamante ni maa ko doon cadré moom mu nekkoon ci comme actrice. voilà premier jour bi ñu njëkk a gisante mu mel ne dañoo xamante ay at booba kenn xamu ko mëntam kenn xamu ma voilà ba yàlla def eh, li mu def tey mu nekk nit ku baax succès fëkk ko quoi. ndax booba kenn xamul Sofia booba aussi kenn xamul Fabintu mais succès fëkk ko mu resté toujours ci ni mu nekkoon nekk nit ku baax kon bu xewlee wax dëgg yàlla wax nu ko mbégte dong la ci ñun ñoo ngi dëkk ba Bargny xam nga nit koo yëgul ak fi nu dëkk ni mu soree nga déplacé wu ñëw ba Ouest Foire ça veut dire que fi nga ko teg sori na quoi voilà baax gu mu baax daal moo nu fi indi waaw mu rester toujours Sofia rek te xam naa loolu mooy continuer ndax ki nga xamul ba dara dul dara nga gis ko ci loolu la rester ba nëgëni si da ngay xam ne ci loolu la fas yéenee continuer voilà kon na continuer ci loolu rek ndax doomu aadama yi ñu xas célébrité dafa yomb voilà na nekk na na am fulla am fayda gëm li mu doon te ci loolu la ko ñu baree bari xame voilà yal na yàlla dolli jàmmam ak suturaam doomam dem ba di ko teral ci dara daraja yonent yàlla Muhammad voilà merci ñëwal maa la wax leen ñëwal mbaa jóg ci wala maa ngi nii kon yàlla kaay wuyu na ñëpp jóg taxaw na ñëpp àdduna bi yëpp sama jigéen la dañu yàgg trop nit ku baax mu jigéen ju baax jom fu la ah, nit koo xam ne wax dëgg yàlla xam ko xam fu muy teg tànkam la ay yàlla boole ñu du musique du showbiz moo ñu boole donc dañ ci fekkante si waat waaw moo xam ni depuis enfance la kon ma koy ñaanal sunu borom yàlla na ko yàlla defal jàmm te doom ji am nday am baay xam nga yàlla may ko gudd fan may leen gudd fan may ko ñëpp waaw bu mu juddu teral ndeyam ak baayam ñoom ñëpp ci jàmm ak salaam waaw. ngeen waa sunu gaal Sunugal 24 waa Dakar Buzz maa ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax. waaw Sofia gis nañ ne yàlla may la doom bu góor tey wax dëgg yàlla mun naa wax ne euh, l'émotion a atteint son paroxysme Sofia tey lan nga ñu mën a wax lan nga yëg tey ci bés bi. Euh, contentement euh, bégte wax dëgg yàlla dama kontaan daal ba fu kontaan yam. Euh, tey booloo bi fi ñëw yëpp wax dëgg yàlla man foogoon naa tollu ma nii sax <laughs> mu nekk loo xam ni wax dëgg yàlla euh, nit yi wuy nañ ma nga woote ñu wuy si la rek dafa neex rawatina nag wax dëgg yàlla nit ñi ñëw soutenir la jàppale la dooleel la euh, mu nekk loo xam ni franchement franchement franchement li may faral di wax rek baax rek am solo waaye yëg nit rek am solo également respecté doomu aadama rek am solo parce que boo respecté nit nit yi am la te Sénégal kenn moomu leen koo yëg mu yëg la koo bëgg mu bëgg la koo faalewu faalewu la donc di leen gërëmaat encore une fois ci euh, taxawaay bi euh, ci déplacement bi te ku ne xam na ni jot amul ci li nga xam ni mooy réew mi waaye ñëpp bàyyi seen yitte ñëw euh, wuy si ki nga xam ni mooy man mi nga xam ne <laughs> ku ñàkk solo laa donc maa ngi leen di gërëm encore une fois bu baax. Sofia bu ñu weesoo loolu ñu bëgg la laaj rek Sofia fan la toll parce que Sofia dañ ko doon gis si production audiovisuelle théâtre yi tey ñu ngi koy gis si xam naa ne reprendre ko ñu bëgg a xam rek projet yi fan la toll parce que xam nañ ne temps bi xat na pour ñu pas guddal. waa sant yàlla rek xam nga liggéey rek am solo te gëm sa bopp moo am solo comme li may faral di wax rek c'est vrai que je suis mariée am naa doom alhamdulilah waaye du la teree euh, def li nga xam ne mooy sa passion du la teree def li nga xam ne mooy sa liggéey je pense nekk si ménage di lancer waale un appel aussi ci xale yi jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci milieu bi ut leen jëkkër ngeen sëy du leen yàqal dara ci li nga xam ne mooy seen liggéey tey la preuve maa ngi maa ngi maa ngi liggéey maa ngi gérer sama foyer comme il faut di toppatoo sama jëkkër di toppatoo sama kër di toppatoo sama doom voilà di toppatoo voilà ñëpp daal donc euh, wax dëgg yàlla terewul tamit maa ngi liggéey sama liggéey di ko teg ci yoon di respecter sama liggéey ndax nit aussi amul lu dul li nga xam ne mooy liggéeyam te je pense tamit euh, am na solo bu baax a baax a baax ñu ñuy ñu ñu ñu ñu bàyyi xel ci li nga xam ne mooy euh, euh, liggéey bi ñu def donc également tamit ñu ñuy ñu ñu sargal encore une fois ñi nga xam ne ñoom la ñu liggéeyal comme ni nga wax léegi rek ñu nekk à la 2STV di fa def liggéey bi nga xam ne bu am solo la Euh, ñu yaatal ñu taxaw ñu waaye tamit dooleel ñu parce que dañ ne pencum liir bu neexee yaay jaatee ca mbagg ya moo tax wax dëgg ñu ngi góorgóorlu bu baax te projet yaa ngi ñëw nag incha allah Sofia va revenir en force incha allah. <laughs> damay damay damay rester ci benn point rek parce que Sofia gis nañ ne yaa ngi nekk animatrice nekk euh, en même temps comédienne ñu gis nga joué benn série boo xam ne dafa defoon buzz parce que série bi da nga ñëw euh, jël ci rôle boo xam ne je crois rôle lu bon la et puis ak benn rôle boo xam ne je crois rôle dof la. waaw est-ce que mën nga ñu revenir loolu rek une seconde rek parce que ñëpp dañoo xam ne yaakaar ne Sofia ci animatrice la gën a fekk ci comédienne bi nga gën a mëne. <laughs> waa loolu moom am na moom man moom instant yi euh, euh, ci ci li nga xam ne mooy comme li nga wax léegi rek euh, ci comédienne bi lu lu lu yàlla def ci man la peut-être damay wax télé toog ak yar parce que ñi lay seetaan moo tax mais yàqul dara ci li nga xam ne mooy comédie bi ngay def mu nekk loo xam ne aussi peut-être don la ci man parce que dama dama dama mën a perturber dama mën a tooñ waaye euh, di di wax dëgg yàlla mu nekk loo xam ni tamit euh, damaa càng dégg ngeen damaa sonn <laughs> euh, voilà hmm. je pense que nit aussi dafa am dafa war a am ay facettes yu bari te tey bu ñu nee Sofia wax animatrice bu ñu nee Sofia wax wax artiste bu ñu nee Sofia wax li nga xam ne mooy euh, comédienne actrice mu nekk loo xam ni wax dëgg yàlla nit da nga war a am multiple facette en fait parce que loolu mooy talent loolu lañ distingué li nga xam ne mooy talent tey bu ñu gisee Sofia dem ci li nga xam ne mooy mën bi euh, dem gis Sofia dem ci li nga xam ne mooy euh, ci xale yi nga xam ne wax dëgg yàlla donte dañoo juum euh, pour jéem a waxtaan ak ñoom lépp rek pour gindiwaat leen ci li nga xam ne mooy société bi gis Sofia ci beneen facette boo xam ne comédienne la donc il faut être polyvalente pour man. waaw sa papa moo boo koy lancé rek parce que gis nañ ne Sofia di ko wax nag célébrité yëpp ak ñu nekk ci média Sofia bi muy bi muy am jëkkër elle était au summum de son art te da ko fa bàyyi dem am jëkkër te ba léegi yaa ngi gérer sa ménage lan ngay wax xale yi jigéen yi nga xam ne ñu ngi dund célébrité bi te amuñu jëkkër. waaw ma dara alhamdulilah j'ai quelqu'un à côté de moi boo xam ni yi ma soutient sama conseiller la sama confident la sama xarit la sama lépp la maa ngi ci milieu bi c'est comme ni nga ko waxee. waaye teewul ba jëkkër ba jëkkër ñëwee damaa sëyi te yàlla def na maa ngi sama quatrième année yàlla na jëm kanam macha allah alhamdulilah ba tey yàlla may ma doom bu góor euh, yàqlu ma dara yàqalu ma dara ci sama liggéey di topp ci ay ndigalam fu ma tere ma toog fu ma ne demal ma dem du ma déplacé wu te du ma ko wax bien vrai que Sénégal nekk fu te du fi géej dara ump ko ndax léegi Sénégal dara du leen ump ndax réseau sociaux yi fu may dem dama koy tàggu lu may def dama koy wax lu may dugg dama koy wax mu nekk koo xam ne aussi ku neex a ku neex a nekkal la mu di ma gunge nekk sama papa di ma gunge di ma jàppale euh, waaye également nekk nekk koo xam ni fu ma uuf daal te loolu dafa yomb ci li nga xam ne mooy jamono ji siggil ma sagal ma oto fu mu gën a rafetee dama koy dawal macha allah macha allah macha allah waaye wax dëgg yàlla daal laaw la cat bëgguma sax di eggali ndax cat baaxul moo tax daal mu làqatu daal <laughs> kilifa la. d'accord Sofia ñu ngi lay gërëm sa dernier mot. merci beaucoup di gërëm waa Sunugal 24 ah waa Dakar ba seen liggéey am na solo franchement yéen a ngi divulguer ay information yoo xam ni euh, sénégalais yi loolu lañ soxla. di leen ñaanal yàlla na jëm kanam di leen remercier ci déplacement parce que sonn ngeen toute une journée ngeen nekk fii di yendu ak Sofia encore une fois dama leen gërëm rek di leen saagal di leen tatagal di leen jox seen wàccuwaay franchement merci beaucoup merci. merci.